Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, louange à Allah, le très miséricordieux. Chers journalistes et responsable de site, chers compatriotes sénégalais, sénégalaises, le mouvement citoyen Merew 3D est né de réflexions, analyses et demandes de milliers de Sénégalais émanant de celle d'un citoyen, d'un concitoyen sénégalais appelé Cheikh Cham, vivant et travaillant aux États-Unis en qualité de tailleur modéliste. En effet, cela fait quatre années que M. Cheikh n'a cessé de nous produire des vidéos et des vocaux aux différentes applications de, du net afin de conscientiser et de susciter la réaction de ces pères sénégalais que nous sommes pour savoir exactement notre niveau de poule de détresse, de découragement et de désespoir, ainsi que les ambitions et les aspirations de notre conscience collective pour de meilleures conditions d'existence dans un État véritablement démocratique, républicain, au service exclusif de ces populations sans distinction de race, d'ethnie, de religion et de classe sociale. Tout ceci a abouti à une volonté profonde et générale d'une refondation de notre République par la voie de la vérité, de la droiture et de l'engagement dëgg, dëggu, dogu, que nous appelons la troisième voie. Une voie à nous est pour nous alternative au socialisme et au libéralisme qui ont fini de démontrer leur insuffisance au développement de notre nation. Plus qu'un programme, Mereu 3D est une doctrine sénégalaise, porteuse de projets de société basés sur l'enracinement et l'ouverture, au fin d'un apport positif de l'Afrique à la civilisation de l'humanité, notre idéal universel. Merew 3D déplore et fustige les actes irresponsables, intolérables et antidémocratiques constatés aux manifestations politiques, mettant en péril les acquis et réalisations matérielles et moraux des braves concitoyens sénégalais. Nous appelons toutes les organisations politiques et leurs leaders à assumer et s'assumer devant leurs responsabilités en revenant aux principes fondamentaux de la politique tels que définis dans le dictionnaire encyclopédique. Entre parenthèses, la gestion de la cité relative à l'organisation du pouvoir dans l'État à son exercice. Que les débats programmatiques civilisés, démocratiques et équilibrés reprennent le dessus sur l'anarchie, l'insolence et la brutalité de tous bords pour le maintien de la stabilité et de la paix sociale de notre chère nation. Merci de votre attention. Vive Moreau 3D, vive le Sénégal. Oui, on le pense très sincèrement. Parce que euh, on pense que le Sénégal, euh, brusquement d'un jour à l'autre, est passé de la vérité à l'anarchie. Le Sénégal des années d'indépendance euh, ne se reconnaît plus dans ce qui se fait actuellement par son élite politique gouvernementaux. Très sincèrement. Donc, euh, auparavant, le débat politique au Sénégal était un débat démocratique civilisé, où la bataille se faisait sur des idées et non sur des antithèses non fondées et non sur un pouvoirisme démesuré et non sur l'intérêt personnel et particulier d'un individu ou d'un groupe d'individus. Nous que le Sénégal que nous connaissions des années 70, des années 80, avec des hommes de valeur dans tous les domaines, dans l'éducation, dans les sciences, le Sénégal où dont l'élite représenter l'élite africaine. On ne peut pas ne pas citer Cheikh Anta Diop, un de, nos modèles. On peut ne pas citer euh, Mamadou un homme politique vertueux. On peut ne pas citer Lamine Gueye, qui est le promoteur des étudiants du Sénégal le premier à envoyer des étudiants du Sénégal aller en quête du savoir en Europe. Donc, euh, véritablement, et sur le plan même religieux, nous avions des guides religieux qui représentaient des vertus, qui représentaient une certaine sagesse, de l'humilité, malgré leur puissance matérielle et financière, mais qui mettaient tous, toujours en avant l'intérêt général, l'intérêt des Sénégalais. Donc en comparaison, en, compara en comparant ces deux Sénégal, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, sincèrement, si les jeunes n'ont plus de repères, c'est parce que ils ont vu, ils ont vécu un temps où ceux qui devraient les représenter comme des repères ne sont plus là. Nous, nous, nous, pensons que tout le monde est responsable. Ce qui se passe au Sénégal. Exactement. Oui, tout le monde est responsable dans la mesure où euh, ce qui se passe, c'est au-delà même des de politiques, un phénomène sociétal qui fait que dans tout, toutes les structures socio-professionnelles de notre pays, on retrouve maintenant le gain facile. on retrouve vraiment euh, la quête du pouvoir et de la richesse sans connaissance. On retrouve la dévalorisation des institutions. On retrouve la dévalorisation du bien commun. Donc nous tous, nous sommes responsables. Ceux qui ont la lourde tâche de gouvernement, de gouverner, sont responsables Et leur responsabilité se mesure dans le fait que seul l'État a le droit d'exercer la force, mais que cette responsabilité, nous trouvons que euh, est mal gérée. Pendant que s'il s'agit de l'opposition, la même chose. Nous constatons une, une, une opposition anarchique, une opposition sans programme, une opposition euh, qui met en avant des intérêts particuliers et personnalisés. Une opposition de carriéristes. Auparavant, au Sénégal, l'universitaire se suffisait de transmettre son savoir aux générations futures, pendant que maintenant nous voyons des universitaires qui ne cherchent que des postes politiques. C'est malheureux pour ce pays-là et c'est malheureux pour la jeune génération que vous êtes. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, c'est des manifestations politiques euh, antidémocratiques et anarchiques du moment où euh, nous ne pouvons pas comprendre que pour des raisons politiques ou sociaux, quelles que soient les raisons, les motifs considérés, que l'on puisse saccager l'intérêt commun que nous avons. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous ne pourrons pas comprendre que pour des raisons politiques, que l'on mette en danger l'honorabilité de nos responsables moraux et religieux, de nos guides religieux, l'honorabilité de nos villes saintes comme Touba, Tiawan, etc. Nous ne pouvons pas comprendre que pour, rien que pour euh, euh, euh en, en quête de pouvoir, que l'on puisse sincèrement utiliser la presse non seulement comme un champ de bataille d'idées, mais comme un champ d'insultes et de malversations et de dénonciations non fondées. Je pense que ça, c'est des antivaleurs qu'il ne faut pas transmettre aux générations actuelles et aux générations futures. Moi, personnellement, je ne voudrais pas nous personnaliser le débat en disant un tel ou un tel. Nous pensons qu'actuellement, le Sénégal, les maux dont souffre le Sénégal sont partout, dans la politique, dans l'économie, dans même nos religions. Il faut que nous, Sénégalais, nous acceptions de faire notre autocritique pour voir ce qui ne va plus chez nous. Parce que, par exemple, même un, un leader politique qui veut désacraliser nos institutions ou nos chefs religieux en utilisant des jeunes Mais si ces jeunes-là ne sont pas bien armés, ils sont facilement utilisables. Mais s'ils sont bien armés, s'ils sont bien éduqués, s'ils sont bien responsables, personne ne peut les amener vraiment à la dévalorisation de nos institutions, surtout de nos croyances religieuses. Saliou Lo bokk ci membre yu ma yi yore seen kàddu fii ci Touba. ak ci Sénégal gépp ginnaaw loolu dañ leen di présenté li tax ma jóg lan mooy taxawaayu ma réew ma réew day kuréel goo xam dañ ko nas biñ ko naseeg léegi nag ci at nangam lay toll li ko tax a jóg nag mooy dañoo xool ne lu jiitu 1960 ba nëgë ni ceddo yi ñoo fi nekkoon yore réew mi ñoom bi ñu fi jógee dañ fee bàyyi nasaraan si te bi nasaraan si dëgg dañu fee jëlee ceddo yi ñoom nekk fi ñu xool ne même boo xoolee ceddo yi niñ fi nekkoon ba niñ fi jógee daanaka lu amal njariñ réew mi defuñu ko tubaab yi biñ dikkee ci noteelu réew mi lañ nekkoon ba niñ fi jógee bi tubaab yi demee ñun ñu bàyyee jàngkat tubaab yi lañ ñu bàyyeel kon ñu xool ne ba léegi réew mi ñu bari dañu wax ne réew mi doxut te doxut bokk na ci tax ne réew mi doxut mooy dañoo war a saytu lan moo war a doxal réew mi ndax nanu xam ne réew mi li ko man a doxal mooy lifi nekk ci aada ak cosaan ak diine amul dara luñ mën a jéggaani lépp luñ soxla ci réew mi rek suñu boroom defal na ko lépp lu mën a développer réew mi am nañ ko ndax am nañ ay référence yu doy sëkk pour développer suñu réew jëruñuy jëruñuy dem ci tubaab wala dara bu dee ci wàllu tubaab boo jëlee ku mel ne Cheikh Anta dafa dem jàng ci nasaraan yi ba xam li ñu xam ñëw jëfandikoo ko ci aada yi Sénégal ba ñëpp naw ko ci nga jël ku mel ne Mamadou Dia ñëpp nangoon nañ ne yoon wi mu bu fekkoon Senghor bàyyi na ko mu dem réew jàll na fii bu yàgg nga jël ku mel ne Cheikh Bamba wala ku mel ne maam El Hadj Malick maanaam doxin wi ñu doxee doy na sëkk ci dëkk bi ñu nekk dëkk bi bi ko borom sànceeg léegi ma du téeméeraat te ku jàngat développement bi nga am da nga xam ne xam-xam bu leer moo ci nekk bu ñu jàpp ne ak wilaaya la ndax bu doon ak wilaaya da koy def dem mais da ko bind muy lu leer loo xam ne projet de société la def boo xamante ne doy na sëkk pour développer Sénégal nañu jàngat Touba rek jàngat Tivaouane ak yeneen mag ñi projet de société yi ñu amoon daay doy sëkk pour ñu développer Sénégal kon amul lu ñuy jéggaane feneen kon lan moo des mooy ñun Sénégalais yi toujours politiciens yi dañ ñuy nax ci ni ñuy naxee mooy ci suñuy tànk la ñuy jaar ba falu te buñ paree def lañ def ndax politiciens yi ñoo ñuy tànnal ki ñuy jiite dañuy tànnal ay député dafa jot ñun sénégalais ci ci boppam ñu toog tànnal suñu bopp ni ñu tànnal suñu bopp mooy dañuy référé wu ci mag ñi wu ci xam yi ñu am te bàyyi yeneen xam-xam yi ci des ndax mënuñoo fexe ba développé Sénégal ndax coow li am fan yi dara waral ko lu dul nit ñi dañoo yeewu ci kaw yeewute gi ñuy yeewu nag fa ñu référé moo baaxut bu fekkoon bi ñuy yeewoo dañoo référé ci mag ñi am référé ci suñuy xam-xam ndax nit ku nekk li lay développé toujours danga ngay dégg nit ñi leen wax ne la li lay aju ci sa sa xam-xamu réew ak sa làkku réew mais ñun dañoo bëgg a développé ci xam-xamu jàmbur ak làkk réew jàmbur ba ci texte yi ñuy àtte woo du suñuy texte te pourtant war na nañoo mën a tëgg texte yu méngoo ak noonu ndax ñi koy tëgg dañuy dugg ci biir tëgg ko ñëw imposé ñu ko nañu texte yi ci ngeen àtte woo moo tax ma réew woote ne ñun dañoo bëgg képp ku di Sénégalais woote wuñ ci diine woote wuñ ci tarixa woote wuñ ci dara li ñu woote mooy képp kuy nationalité sénégalais nga xam ne ci Sénégal nga bokk buñ ko jaayantee dañ lay jox sa wàll kooku la ñu woo woo gi ñu ko war nag mooy ñu bokk di li ñu soxla ci réew mi sart yeeg yëpp ñu bokk nasandoo ko ba mu yegg ñu xool ñan ñoo koy présenté ak ñan ñoo cay taxaw ci fànn boobu bu dee ci président gi ku ne xam ne sart réew mi doxut bokk bari na lu lëj mi moo ko indi kon loolu lu ñu war a tënk la càmbar ko kon dama Sénégal ñun Sénégal yëpp dañoo war a dajee càmbar ko kon Sénégal kenn mënu koo développé lu dul njàngaleem mag ñi wala njàngaleem Sénégal leneen lu ñu mën a indi rek mënut a développé Sénégal moo tax sa ma réew daje ndax secteurs yi mu ci wàllu diine mu ci wàllu politique wàllu goo mën a gis aaraan gu mën a doon rek am na lu ca baax am na lu ca bon ma réew nag li pare mooy baax lay jël la ca bon moo sànni ko waaye liñ mën a jëli te bàyyi fi li ñu am ñun te muy lu gënt ñun duñ dem moo tax ma réew woote amul xaaj amul seen ñëpp la woo góor jigéen mag ndaw ñëpp la woo pour lan ñu dajee waxtaane Sénégal ndax Sénégal fi mu daa jot sëkk ñu waxtaane ko loolu moom lu waay dof dof dof xam nga ne Sénégal lu aji waxtaane la fi mu toll nii lu ñu war a péncoo la ndax dugal nañ ko ci guuta goo xamante ne lu ñu war a wax la te saafara bi du jóge fenn du jóge ci mennum réew mu dul Sénégal kenn mënu koo saafaraat ku waa Sénégal population bi nag ñoo ko mën a saafara ndax jox nañ ko politiciens yi mënuñ ci dara ñu jox ko ceddo yi mënuñ ci dara tubaab yi jaar dara kon daa jot ñun ñi nga xamante ne aada cosaan yi fee lañu fekkoon ñu dellu siwaat dellu siwaat ci njàngale mag ñi dellu siwaat ci njàngale mi ñu jàngal doy boo xoolee Sénégal ñu ci ëpp fi ñu ba ci gone yi référé gi ñu refewu dañuy jëli beneen beneen beneen waay ca beneen bitim réew comme mën naa tudd ku mel ne Thomas Sankara boo yu bari fi seen profil yi moom lañ ko def pourtant Thomas Sankara deful lu deful lu si Anta Diop defut déedéet jàngalewul lu lu lu kii jàngalewul euh, kii Dia Mamadou Dia mais pourquoi ñun mënuñoo référé ci suñuy réew ci suñuy nit yi réew mais dañuy dem référé ji feneen ba léegi duñ dem réew mu nekk la koy defar gis nga tubaab bi duñ mus a ñëw ci ñun di ñu référé déedéet tey it li tubaab bi baax le njàng mi dañ koy jàng ba pare jël suñu aada boole ko moom pour dund ci mais bu fekkee dañoo bëgg jël aaday tubaab bi ak seenu njàng yëpp dem duñ dem mukk ndax méngoowut ak suñu cosaan méngoowut ak suñu aada fi na loolu moo indi problème bii am ci réew mi koo wax ñàkk teggin gi mel ni tule mooy nit ñi yeewoon nañ waaye référé wuñ fi ñu war a référé il faut nag ñu imposer nit ñi wala ñu waxtaan ak ñoom ñu dellu si ci référé yi nga xam ne dañ ñu cettegoon ndax ñun amul lenn luñ manqué amul lenn yàlla wacci ñu ci dara waaye ñun dafa mel ne ñun ñoo bëgg a wàcc suñu bopp bëggoo gi ñu bëgg a wàcc suñu bopp il faut ñu dellusiwaat dellusiwaat gi moo tax ma réew woote képp ku mën a doon rek ma réew woo naa la lim la woo mooy dëggu dëggal dogu dëggu dëggal dogu lii la ma réew woote ku ci nekk na am nga ci xam-xam ministre méta ministre bois bi am na ci xam-xam tailleur bi am na ci xam-xam ku nekk am na xam kenn ku nekk fànn ba nga nekk ma réew dalaa ci awoo ngir nga indi ci sa participation ci defarum réew mi nga xam ne bu ñuy tënk dañ koy tënkaale lépp nga xam ne ku ci nekk da ngay gis sa bopp ci doxinu réew mi laay wax man ñoom ñëpp laay wax ndax kenn ku ci nekk bu defoon li li ko war bu ko defoon coow mën naa bañ am ki mu ci jiital nag mooy ki yore réew mi Macky Sall ndax kooku mooy réew mi réew mi déggoo li ma li fekk teguñu ko ci ay charte maanaam teguñu ko ci tëgginu suñu tëgginu bopp maanaam ni sunu ni sunu askan bindoo du jëkk ci coow ndax li tax duñ jëkk ci coow mooy ku falu sa bopp ngay nekkal yaag sa ñooñ foo lekkul ma falu rek moo fi nekk waaye ba léegi askan wi gisaguñ seen bopp waaw man de loolu laa jàpp man de loolu laa jàpp man dama jàpp ñaar ñoom ñoom maanaam ki Macky Sall ñoom ñooyam ndax li tax man la ñooy mooy man ba léegi gëm-gëm bi ma am mooy képp ku mu ne damay defar réew mi képp ku bëgg a defar faaw nga dellu ci ci ci source yi yi fondé réew mi képp ku ne mën naa defar réew mi te tawoo ci source yooyu man gëmaguma la ndax ñun dañoo am loo xamante buñ ci rek quelque temps réew mi day dem fi mu bëgg a dem muy lu leer référent yi ma lay wax rek buñ ci jaaroon xool seeni doxin donc ni ñu ñu defe ni ñu defe rek ci projet de société yi ñu amoon rek réew mi nga xam ne dox nañ ci dox goo xam ne ci lu mat a téeméeri at boo ko jàngat dalay leer nañ kon képp koo xam ne bëgg nga ne da te bàyyi fi loolu jéggaan leen man jàpp na ne mënoo defar réew mi moo tax man ma réew de li jàpp mooy def moom Macky Sall am troisième mandat ak ma réew li mu fas yéene mooy candidat bi nga xamante ne mooy référé ci référé bi ñu bëgg nun nun kooku la ñu àndal te ma am candidat boppam amuñu nag kuñ ne kii mooy candidat bi loolu dañ koy toog waxtaane ko ba tënk ko ñu ne kii moo nu doy moo sunu candidat ñu yóbbu ko ci candidat élection waaw ñun amuñu pour ànd kii képp ku di politicien nag ubbi la tëjal nañu la suñ bunt waaye képp ku ñëw ci filoo bi ñu am ci ngay doxeek ñoom ci bi ñu am ci ngay doxeek ñoom muy référé ci ci ci ah, li fi nekkoon waaye man képp ku ne mën naa defal réew mi te référé wul fan man jàpp na ne mënut a defal réew mi. ankay xam nga ma réew dafa sosu at am ay bànqaas soo nee waxtaan ki kii ñëw ngay waxtaanal waaye ñun ñi nga xamante ni ñoo tënk ma réew ñun am na ay ay ay ay. base boo xamante ne ci lañ ci lañ référé ba bind ko muy texte yu leer naññ yoo xamante ne ci jàngaleem mag ñi ci lañ ko jëlee ak jàngaleem ñeneen ñi nga xamante ne doon ñu woon nit yi dina ku mel ne Cheikh Anta Diop ku mel yëpp baax ci ñoom yëpp dañ ko dajale loolu moom ma réew da koo da koo pare ba bind ko ba teg léegi nag ki muy waxtaan mooy ki nga xam ne bokkul ci ma réew te war a ñëw xam nga nit ki bu ñëwee du ñëw rek nga ne ko lii la déedéet waxtaan yi da ngay waxtaan ak moom ci lay lay waaw ma déggoo leen dama ne jëf joo gis ñu ne dañ koy waxtaane ba dégg ko doog di ko jëf xam nga jëf mënut a jiitu waxtaan jëf mënut a jiitu waxtaan de bépp bépp jëf joo gis mu jiitu te àndut ak waxtaan rek yàqu lay doon wala moom sikkonte waaye jëf waxtaan jiite ko buñ ko jëfee rek moo doon jëf ñëpp nangu réew mi nag li dañuy jëf te waxtaan ñu ne dañoo bëgg njëkkee waxtaan ba déggoo doog di jëf bu ko defee kenn doona gis neexeex ñun nekkul ne comme ni ñuy xeex ni policiers yi di xeexe la ñuy xeexe de ñun sunu xeex mi ngi jëm ci population bi maanaam ñii nelaw nga xam ne 1960 ba léegi dañoo toog fi ñu toog def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi ñoo ngi fexe ba ñu jóg taxaw xam nga réew mi boo ko xoolee dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom rek ñoo war a yor réew mi ku jóg da nga war a topp seen ginnaaw. pourtant réew mi ñëpp ci bokk yam baykat ba ci fangalu mi dafa am wàll ci réew mi am sañ-sañu wax ci am sañ-sañu def ci. kooka da ngay fexe ba mu nangoo ñëw bokk si nangoo jog wax nangoo jóg def bu ñëpp jógee taxaw rek lépp sot waaye bu ku nekk xaare ni diw moom war a defal rek dara du di ko saafara nit ki bu jógee saafaraal boppam mu saafaraw dégg nga ma dama askan wi ci boppam ñooy jóg doon ma réew yow li nga bëgg ak li kii bëgg ak man li ma bëgg bu ñu dajee waxtaane ko nas ko ci genn buum buñ ko saafara mu jeex askan wi ñooy saafara seen jàngoro bopp li tax man la ñoo koy safara mooy politiciens yi ñoo ñu daan saafaraal da ngay toog bu dee bu dee assemblée nationale dañuy dikk indil la nit ne la kii mooy tedd liste wala nag nga woote ku mu dem kooku bu demee boppam lu fay nekkal mais yow boo toogee ak man kii ñu toog ñu ne dañoo war a wala nga bokk ci politiciens yi doo doon doo bokk ci eh, doo bokk ci nit ñuy nase loolu moo war a dañ ci réew mi li fekk loolu dañoo réew mi du avancé te loolu daa war a dañ te nit ñi ñoo ko war a laajal seen bopp moo tax ma réew ne képp koo xam ne pare nga pour réew dem woon la ma lay wax mooy xam ay bànqaas dafa am Touba am Thiès am dëkk bu nekk day commencé bay fi mu bay fi noonu Touba rek bu ma réew commencé woon liggéeyam li muy njëkk a def mooy waa Touba gi ci moom dañu fexe ba jàngal leen man la bu faw sëy xam nga nekk ci Touba nga naan ko def nga lii wala defoo lii boo ko jàngalee man la bu a yar dégg nga boo ko jàngalee gone gi la wax mu xam ni sëriñ bi tëggee dëkk bi comme par dama lay dama jox misaal rek dama leen tey bu fekkoon gone Touba da nga ko bëgg a yar ci dëkk bi ba méngoog dëkk bi boo ko jàngalee man la bu day doy sëkk ndax man la fas ni borom bëggee dëkk bi mel na rek daanaka bindee na ko noonu kon boo ko jàngee day doo sëkk pour nga référé ci dëkk bi. ginnaaw point de presse bi am nañ beneen conférence de presse boo xamante ne ñi nekk États-Unis ñoo ko fas yéene def yeneen jéego yi ci mooy fas yéene wër kilifa diine yëpp ci réew mi yëpp jébbal leen li ñu bind wax leen suñu suñuy jéego ak fañ jëm bi ci toppit fas nañu ne population bi kenn ku ci nekk fas nañu ne fekk fa nga nekk waxtaan a yow ci liñ nas. woote bi ñu woote daal mooy waa Touba lañ ciy jiital ndax base bi fii la kon ñoom te Touba dafa doon dëkk boo xamante ne bu doxee senegal gépp dox waaye bu taxawee lépp taxaw te borom dafa jàngale loo xamante ne réew mépp buñ ci nasoon réew mi dem amul siki sàkka kon daa jot sëkk taxaw mbir mi waxtaan rek la li kenn ku nekk taxaw di xaar sama morom danga moo tax yëf yi desee dox kon ñi ngi woo waa Touba ñëpp amul kenn koñ bàyyi góor ak jigéen mag ak ndaw lii du mbirum tarixa du mbirum diine du mbirum dara mbirum senegal la moo xam mbërum làmb nga moo xam politicien loo mën a doon rek woo nañ la ci pour defar defar Sénégal donc ko tax a te boo ñëwee sa xalaat lañ lay doyee sos gi mi ngi jógee ci ku ñuy wax Cheikh Thiam Cheikh Thiam États-Unis la nekk ñun bari ci ñi xam nañ ko muy Cheikh Thiam ambassadeur muy Cheikh Thiam ambassadeur ñu bari xam nañ ko ay vidéo boo duggee ci internet da nga ko gis moom it dafa am gis-gis ci réew mi ni muy doxe kooku moo moo fondé ma réew bi mu ko fondé nag ñu mel ni ñun di ko seetaan di ko diglu de moom ma jàgg ñu jokkoo ak moom di waxtaan ci lañ nasoo ma réew ñu def benn groupe groupe ma réew ñu di ca dajee ba fi ndool bari na groupe yu mu jur ñu dem moomu njàng ñu ne doy na sëkk nag pour ñu jógee ci whatsapp bi dem taxaw ak population wax ndax mbir na boo koy dem ba am atum lëm war nga ko génne ba ñëpp dégg kenn ku nekk am ci gis-gisam lii moo tax ñu génne